ki ngeen di waaj a dégg nii. Mhm. mooy. Euh, mooy sëru Cheikh Tidiane Diop. waaw mooy waa ji demoon Buntu pale mhm. am lu ko metti ci àddunaam gisul saafara. Ah. tax mu taal boppam. Mhm. gars daw nañu wallu ko. waaw mais c'était trop tard. ñaari fan xaw ma ñett lees hôpital jaare fa faatu. Uh-huh. am na lu bëri lu gaañu umpale ci moom. Uh-huh. déglu acca. da nekkoon. itam la nekkoon feebar waaw nekkoon sax bay ñëw am problème kayit. Uh-huh. ñëw di lijjantiwaat su dem. suñ ko booleel sa affaire visa. am ci problème. léegi kooku si yàlla loolu dañ koy war ñu koy jàpp ko jàppaale ko si ñu nekk di lijjanti yooyu. par xamul kat ñu nekk kat man sama bopp day métti dem sa infirmier fëgg. wala sa bopp di métti mu ñëwee fii ba léegi mënuma nelaw mu ñëw jox ko pikir ko mu ne mu toog cinq minutes bu gonflé mu ma yi ba léegi amu jàmm mu ne ko dangaa ragal def si ko nii dangaa sama toog loxo bi. man ma toog dem visite di ko visite ñu ne ma dafa feebar mënoo ko gis nag loolu mënul nekk toog toog ba ngoon ma gis ko loxo bi nii ma ne waa ah, li yàlla mën a mu expliqué ñu ñëw di lijjanti loolu. ma xëy mu woo moom na ma ma mu ne ma la si ma ko téléphone ba woote si si daan mu ne ma damaa ngi hôpital daal de ma ko lu xew mu na ma ne ko ñu ko ñu ko yóbbu ko feneen ki def loolu ah te yoon téye woon na kooku. comprimé ki bopp di métti nga fikir ko ba loxo bi def noonu en tant que médecin te xamoo piqûre bi bu méttee loo si war a def defar loxo bi mm-hmm. ah nga mën a si foto mu def bi fatt na bën bën piqûre bi foto moom si def fatt na sidit bi sidit bi deret bi yéegul deret bi wàcc moo yàq loxo bi mm-hmm. mu mu def fan daal nekk si loolu mu lijjanti xaasam fay nit xaasam mu nekk état bi mu ne daw na daw na daw na ba nii ñu ngi jokkoo toujours toujours amuñu benn problème amuñu benn problème. Mhm. ah ñu nekk ak moom presque fi la logé woon. Mhm. jabaram mi ngi fi amuñu benn problème xale bu ñu la. am na jabar kon am na jabar mu ngi si biir am ñetti doom. Mhm. ah benn doom bi mu ngi def cité benn doom bi mu ngi sëy ci ndaw fi mu ngi moom lañ bot non non. kii doomu rakk magam la situation bi lool la leen mënuñu ko si wax te dawul fi kenn daal benn problème état état ko waroon fay ñu ko yooyu la nekkoon kenn xamul nag luñ ko wax fan yi mu nekk ci xolam ba tax mu def loolu. Ah, dafa amoon rendez-vous ak ñoom. ñoom chaque jour mu ngi si këyitam loolu rek la muy liggéeyam. Mm-hmm. nan la def ba ñu fay ko xaalisam si yooyu rek la nekkoon. moo def lii. waaw ñun toog nañu am benn problème. Mm-hmm. nit ku baax ah lu mu am bokk ah. tey jii yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokkam nag lan ngeen bëgg ñu def ko. maanaam ngeen doon tamit fu mu ci tolloon état bi taxaw. état bi mu taxaw. Mhm. fay ko xaalisam fi ñu jëriñoo ko. Mhm. xaaj nekk mag papa ma wax ñu def dara. Mhm. c'est war. ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana te yu mel ni yàlla na gëj ci réew mi eh, njaay te justice nag eh, lii nii ñu ñu ko mënee indemniser. ndàmp njabootam daal ñu def ko. foofu rek la ñuy yem. ah waa ji dee na. waa pare ña ko ko pikiir ñu jéem a lijjanti ko ko pikiir ko ko pikiir est ce que war naa pikiir war ko pikiir def ci ay enquête suñ bëggee mu leer dina leer de. mën naa comprendre. nit def njuum te ñu dugal ko kaso. waaw mu génn jëlee fa jikko ju bon. waaw xëy nit ku nekk ak ni ko yàlla. binde binde mënuma comprendre nit dugg kaso ñaari loxo génn ak benn loxo. lu yoon. benn te ñoom biir nañu leen ne ak ci condition que man je ne maîtrise pas ça. xaw ma lu xew. Mm-hmm. mais ak lu mu mën di xew loxo ba moom ca kaso ba la des. Mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu noonu jëm boppam lañ waroon njëkk a lijjanti baan loxo amul njëg mook bët ak làmmiñ ak noppa yam ba mu génnee purgé na penem purgé wu ko tëdd na ko tëdd ko moo tooñ tooñul kooku liggéeyu justice la mais li ma mënul comprendre daal mooy waa ji génn ci kaso bi ab loxoom ca kaso ba la des mhm, à défaut ñu delloo ko loxom waroon nañ ko dàmpe loo xamante ne ji dootu dootu ñee borom ñaari loxo yi waaw loolu moom dëgg la waa ji laata muy yegg ci di taal boppam fu ne yëglu na fa mhm. daa léegi doom yi mu bàyyi nii nii mhm. kan moo ko yor ah jabar ji mu bàyyi nii nii kan moo ko yor moom mbokki waa ji nga xam ne ab immigré la woon saa su nekk ñuy wax nit ñi nañu gëm seen bopp du toog ci réew mi liggéey réew mi boo gëmee sa bopp jógee bitim réew ñëw ci réew mi liggéey ci réew mi ñu dàgg sa benn loxo mais mieux vaut nga jël mbëkk mi dem sa yoon mhm. kii li ñu ko def nii rafetul rafetul kenn te li ma si metti mooy ah. dégguma kenn wax ci waaw war war nañ ci léegi daal waa ji dem na kaso dagg nañ loxom jooy na ko taal na boppam mm-hmm. te ku taal boppam buntu pale umpul njiitu réew mi mm-hmm. umpul ñi wër njiitu réew mi mm-hmm. mais pourquoi kenn jéemu ci dara ah. mais Ndiaye mais Ndiaye moom faatu na yàlla na yàlla yërëm ko man nag ma taal sa bopp man ànduma ci est-ce que nit war na am lu ko naqari waaw man ànduma ci loolu nag moom man Ndiaye ban tooñ nañ ko war nañ ko ndàmp et tout ji fi mu toll ba def li mu def moo ko ngeen fa tollee def ko raw fopp te taalul boppam Ndiaye man loolu ànduma ci ah. Ah, mais parce que. noonu moom am na capacité d' encaissement. am uh-huh. na capacité d' encaissement. mais dama ne la. Uh-huh. kii buñ ko yedd. Uh-huh. man santuma kenn mu taal boppam. parce que du ma mës a taal suma bopp. waaw mais li ma leex mooy. bu ñu ko jugé. wala fu ne boo bañee ku fecc da ngay bañ ku tëgg. waaw ña dagg loxoom. waaw di ko sàggane. waaw ba mu yegg ci taal boppam. waaw dañu njëkk a wax ñooñu. waaw ñooñu nañ leen teg ci yoon na ci yoon. def ubbi ab l'enquête après dans tout ça le grand perdant mooy moom mi nekk yowmal xiyam. waaw ah, ay doomam kay. ay doom waaw moom kay. mi nekk enquête dugg fii génn fii nangam sangam et puis buñ man li ma gën a <laughs> non grave lépp lañ mën a wax mais li ma gën a metti mooy. waaw dossier bu leen ñor dañu koy taf tafee liggéey ko mu féete boor. waaw ba mu leer. tëj nañ Khalifa Sall tëj nañ Barthélemy Dias jàpp nañu. mais nag man nag mais lii nii c'est que lii nag lii nag bëgguma ñu politique ko. c' est pas politique. non non c' est parce que soo xawee xawee commencé tudd ay ay hommes politique yooyu. lii du affaire politique. li nit ki juste li jël ci yow daa diis. waaw je suis pas waxuma politique. waaw dama ne. waaw waa ji. waaw moo tooñ yoonam tooñul yoon. waaw. li ko dal ñaaw la. waaw li ko dal nañu lijjanti ba xam. fan la dalee parce que. bu ñu dugg kaso ñaari loxo la fa duggee. fu ne dem na fa waa ji amul fu mu ba mu demee ba sonn dafa taal boppam. waaw te li ma metti mooy taal la boppam suul nañu ko teg déggoo kenn wax ci. dara yëngu loolu it metti na ma. voilà war nañ cee wax la dama ni loolu xool wuyu ma wuyu ma war mu leer. Mm-hmm. kooku pikir nañ koo woo. Mm-hmm. kooku ko pikir loo war nañ koo woo. Mm-hmm. ka dagg loxo ba ñu woo ko. mbir mi ni mu demee ñu leeral ko ñi nga xam ne dañ ciy def dañ ciy kii ñu teg leen i daan njabootam gi ñu fi bàyyi ñu xool nun leen mën a dàmpe jàppale leen mais est-ce que lii du indi ay problème ci biir prison ba euh, est-ce que nit dina feebarati ci prison ba am confiance di jox boppam ah. benn kuy faj pour mu koy ah, faj ko i règle daa am i règle bu ko deful de en tout cas daal war nañ koo leer moom sama leeral moom kay moom waaw ah. ci prison ba ñoom la ñu dénk détenu ya ñoo leen di toppatoo ba ku sa peine jeex nga génn erreur médicale am na wala càggante négligence man loolu ma ko du ma ci wax mhm. mais daal li ne fàng mooy waaja ñaari loxo la fa dugge benn benn la génn war naa leer de ba muy taal boppam it kenn du ne yëgu ko ndax ci buntu kër njiitu réewum Sénégal la taale boppam mhm. citoyen la ngi déglu